I'm a demon battle, but no, I don't like my family. I'm a man, I don't think you are. But I don't have you like the water I would die. But if I love a baby, you're right. My demon, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, Get them done. عيد فضيلة اكسي سمن دانا yàlla si gis di sariya fi ñu jaar lim la toll li nga may baal lim la jaral ak fi mu la tollee sama ndaana yow leen gën a lool nu mu leen dur zone na wax li mu am dër na la yëpp teew yore nga nii waaw di ko naan di stade ma tukkee way ko mu jaar sant Baba. waaw man dama tardé dama war a dem. Tamba une minute une minute rek jàpp si gàmba. taxaw leen taxaw leen taxaw leen. ba mooy le fer de lance de la musique sénégalaise mu nekk tout à tuddee l'étoile filante même fu mu toll nii gars yi ngi est-ce que du nekk artiste de l'année Amadeus li nga koy baax a baax si nga ziar salaamaaleykum Amadou. maa ngi delloo ziar bro maaleykum salaam. maa ngi si jàmm maa ngi sant bu baax. alors Amath Diaz Sénégal yu bëri ñoo ngi wax ne fu mu toll nii performance yooyu def si wàllu musique sénégalaise jéggi na dayoo est-ce que dafa nekk li nga xam ne nii maanaam euh, lu nga liggéey la maanaam travail long terme bi nga xam ne tey jii moom moo day moo ñëw tey. yàlla la yàlla moo jiitu lépp yàlla moo jiitu lépp après liggéey après liggéey soog a ñëw ah. Mhm. am na ñoo xam ne ñoo ma gën a liggéey fuuf peut-être feeñuñ comme ni ma feeñee mhm. lépp si yàlla laa mhm. yàlla laa delloo lépp. ça vous fait quoi loo génnee mu daal doon it rawatina nga def li nga xam ne moom mooy Dio Wally Ballago sekk mi yaa gisee Xirsa ak mi nga xam ni moom moom moo yaa yow Wally Ballago Seck Sénégal ñu ko adopté woo. Euh, nekkul lépp lu ma génne dafay nekk it parce que man yàgg naa génne son deful it comme nii nii man def ma découvrir mu def it te boobu daan naa génne son yu naaj peut être yu daax sax yi gars yi gis nii muy nekk it. Mm-hmm. it moom amul ko am secret bi amul ko am formule bi yàlla mooy def dara génn ñëpp bëgg ko. encore une fois yàlla ko yàlla voilà man damaa def rek it yàlla moo ko def. sa diw ak Wally Ballago Seck nu mu demee. waaw mais comme ni diwo yëpp di demee ah collaboration yëpp ni muy demee ay artistes fii lante tase waxtaan def def son bi comme ni noonu la demee. challenge bi nga xam ne Sénégal yi ñëpp ñoo koy krok ki nga xam ne mooy Adja Diallo euh, bokk na si nga xam ne moo def sa bu baax a baax sa promotion alors sa diggante ak Adja ak na gisee challenge boo xam ne def na ko si kii Adja ah sama xarit la sama mag la sama lépp la très sérieusement et puis sama fan la dafa bëgg sama musique et puis man tam dama koo fan si li muy def voilà Adja ah Sénégal yëpp ko bëgg te man Sénégalais la taar la si Sénégal te man sama album taaru Sénégal la tudd déjà donc Adja ah day illustré sax loolu noonu mhm. waaw beauté femme sénégalaise ak baax ak yaatu maandu xam mhm. loolu moo tax ma bëgg ko et puis moom tamit mu bëgg sama musique loolu la daal feeling bu réciproque la ñu am ñun ñaar sama waay la sama mag la sama xarit la sama lépp la yàqamti nga dernière question wax nga ko album bi nga xam Sénégal yëpp moom la xaar muy taaru Sénégal lan lañ mën a xaar si taaru Sénégal waaw mën nañ ci xaar euh, son yu rafet yoo xam te ne day refléter son yu démb yi quoi parce que album la moo xam te nii man dama koy def di si rendre hommage gars yi teg musique bi quoi artistes yu yàgg yu njëkk yi quoi ay ñoom Kiné Lam ñoom Youssou Ndour Oumar Pène ay ñi nga xamante nii ñoom ñoom laa daan déglu daal ñoom laa si njëkk a rendre hommage parce que ñoom ñoo tax man may def li may def donc su ma def dara dama leen si tàmbalee quoi dama leen si rendraale hommage mais sama ci sama biir liggéey quoi dinaa def ay sama son yi may def di ci jël seen ay quelques di ci jël seen ay air di si jël di leen jël comme référence daal taaru Sénégal ci loolu parce que ñoom ñoo def taaru Sénégal ah. kan lañ mën xaar boobu. le premier novembre bii ñu jëm allah. yàggatul dara. waaw bu soobee yàlla. incha allah xaar leen ko bu baax. xaar leen ko bu baax merci beaucoup et bonne continuation Amadou. jaajëf merci beaucoup jaajëf.